NCA Assurance Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools Dias ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf fii la fuuta féete futtu laytuñ Macky Sall mi ñuy joxtal ak remondaatal ne troisième mandat dafa nekk ci xel mi suur suwaa ne nañu yokk na ci xar karaw yëral xët mu njëkk yéenekaay bi keroog samedi bi waa APR doon def seen lancement wante de carte journal bi ne nañu fa la président Macky Sall ak les waxul dane gaayam ni tey jii dafay bés bu spécial ci ñun bésub saafonte a sóobu ci njaayam carte yi bu baax wàcc ci terrain bi occupé leen terrain politique bi bu leen may kenn lenn nara ngi seere ngeen taxawal ab bloc bu dëgër këcc vox populi ak journaliste ko xëy ñu xamal seen xëtu njëkk li président Macky Sall xamal ay militangam keroog ca ndajama mu di l'heure est au combat lu waaye jàppoon na ko bàyyi te xam ne waxtu xeex waxtu wàcc ci terrain bi waxtu defante jot na lise ko nañu dem na ca ba di leen wax ne parti politique bi teg tànk fii ci réew mi parti politique a carte ak genn wàll waaye limu carte yi mu bëgg nu mu toll rek jiixi jaaxa di incertitude gi am ci ñetteelu candidature am gi ñuy jàbba jonge ci réew mi toll na ni nekk rek samedi ca ay xeltukat ak i gëstukat ci wàllu politique di analyse politique ku ci mel ni professeur Moussa moom li mu jàpp ba ko ci l'observateur moo di Macky ak ni mu doxalee keroog ak li mu wax jéego beneen la bu mu teg jëm ci wuti troisième mandat l'observateur teg ci waxaa ñuy te liñ jiital APR gi wax waa këram keroog mu di li mu ne leen ne bu leen bàyyi yëf yeeg bi mobilisé leen wane leen seen doole wan gaañu ne feneen la jëm ñun Modou Fall la xëy dalal ci xëtam mu njëkk di waxtaan ak moom ci ëllëgu Benno Bokk Yaakaar moom directeur de l'emploi président bu parti bi di RV dëgg ma wóor doon nit coordonnateur bu coalition républicaine sàmm sunu réew nee na dañoo war a tas Benno Bokk Yaakaar ndax atteindre na ay limitam bu doon watalan ñu ne yegg na garas bu ko defee ñu taxawal geneen kuréelu politique maanaam beneen coalition boo xam ne ña cay nekk ay nit yi valeur lañu yu xereñ am xam-xam kàttan ak mën-mën mën a jàppale président Macky Sall ba mu amaat ñaareelu mandat bu juróomi at ndax lu jaadu la fol li Macky Sall fal Alaaji Malick Gakou journal l'info nee nañu ci fii la waa grand parti taxaw ñoom waa grand parti yéen a kaay bi mi ngi ñuy xamal ne keroog def nañu seen ndajam investiture ba tax na kii di Alaaji ko seen candidat ngir mu doon cinquième président de la république bu Sénégal nañu lu jëm ci candidature opposition bi ci élection présidentielle yu 2024 yi Alaaji Maali Gàkko bàyyeewul yëf yeeg Ousmane Sonko ne fa Sonko tegee tànkam Gàkko teg na fa bosam ki teg soog Sonko mooy Souleymane Ndiaye njiital SAPCO ci rajo Sud FM ci émission jano bi moom secrétaire général bu parti SDD ŋàññi na fa stratégie di doxalinu Ousmane Sonko ci mbirum Sweet Beauté bi nee na coow lu bari rek manipulation yu rëy yi jaru ko fi bu wóoloo boppam Ousmane Sonko na dem ca kanamu yoon di justice a gëm dogal bi nguur gi jël ngir wàññi njëgu dund gi soleil national nee nañu doxul journal bi sukkandiku ci reportage bu mu def ca marché bu Kasoor la mu fa gis moo di commerçant yi dañoo mel na déggul dogalum nguur gi njëg yi wàññiwuñu ci dara amul benn changement bu ci am Walf Quotidien di ko dëggal ba di wax ne bu nguur gi wàññee njëg yi sa commerçant yi ñoom wàññiwuñ ni quartier yu ci mel Grand Yoff Wakam ñaari tali njëg yañ daan jaaye la nguur gi moo di dérogation maanaam ñu may leen li ñu yore ci ay stock ñi jeexal ko soog di mën a wàññi njëg yi journal Tribune bi nañu am na ay jaaykat yu boole ak ñëw ak muus ci mbir yi ndax njëg yi leen guur gi wàññiloo wàññi nañu ko waaye dañoo yokk yeneen njëg yi NCA Assurance Gambrendi et la Beauty Malaysia Yomo ñoo leen doon may li ci yéene kaay ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen yu doon teewlu xibaaru suba